mbokk yi ñoo ngi leen nuyuwaat di leen ziyaare di leen ndokkeel ah, di ah, ñëwaat rek ci suñ deuxième leçon française la les classes grammaticales hmm. <coughs> ginnaaw bi nga xamee ni def nañ suñ première leçon doon leeral classe saw classe grammaticale dina ñëw ci façon yi euh, classe grammaticale yi ban ak la ñu gis ni ay façon la parce que njëkk mooy euh, le nom non muy nom danañ leeral lan mooy nom mooy lan euh, ba toppaat mooy le déterminant muy déterminant mooy déterminant yi voilà comme nom exemple ay Abdou Xaadim Astu Faatu yëpp rek noo la waaw après ñëwaat ci le déterminant déterminant yi xam nañ ko mooy yi nga xam ni ñooy déterminer nooy moom nag ay façon la yëpp dina gën a leer ci kanam ak euh, l'adjectif muy adjectif melokaan benn melokaan le pronom le pronom yëpp dinañ indi seen définition ci kanam bu deen ko yàkkamti ak le verbe muy le verbe nga xam moom essentiel lay doon ci phrase mënta ñàkk mooy tax ñu naan ko phrase su doon moom phrase bi du mat kon ba toppaat mooy l'adverbe l'adverbe euh, day bokk ci euh, classe grammaticale l'adverbe ay tere ay tere bien ainsi façon boobu ak pere muy li arab di wax xarful jar ay a et cetera et cetera yooyu noonu yëpp ak lu ñu tuddee la conjonction muy exemple de coordination yeeg yooyu ay e ay car ay nii ainsi de suite et cetera et cetera yëpp dana gën a leer incha allah ci ak l'interjection l'interjection muy yéemu mooy lu ñuy wax yéemu la moom tamit am na ay euh, euh, kiiwam ay lettre am ay li ñuy xarafam xarafi transaction yu yem yëpp ci kanam yëpp dana gën a leen incha allah euh, di wax ni ngeen bañ a abone abonné euh, bu ko defee vidéo su suivant yi nga xam ne mooy dikkaat euh, ngeen mën see njëkk jot mën see jariñu bu baax te it ngeen bañ koo fàtte partagé ngir ñeneen ñi man see jëriñu seen xarit yeeg seen mbokk yi groupe whatsapp yi ngeen bokk yëpp ngeen partagé ñu man see jariñu parce que loolu day tax mu am évaluer ñu gën a mën évaluer di indi ay vidéo yoo xam ne yu ëpp solo la yi gën a jikkaat ci kanam yëpp di ëpp solo di euh, nekk nekk vidéo yoo xam ne gën a utile euh, yi passé mhm. gën ñoo may ñuy gën di yokk activité gi yëpp rek mu gën a avancer gën a évoluer hmm. ngeen bañ a fàtte ba de notification bi lépp rek waaw yëpp daal dina gën a leer ginnaaw loolu nga xam ni bi ñu xoolee dañuy gis ni classe grammaticale yi ñu xoolee ñu gis ci ñu xoolee catégorie xoolee catégorie yi di le nom le déterminant l'adjectif le pronom le verbe yooyu dañuy gis ni ay mots variables lañ mooy ay baat lañ yoo xam ni dañuy soppeeku hmm. dañuy soppeeku salon seeni rôle ak seeni taxawaay yi ñuy yi ñuy seeni position yi ñuy am seeni taxawaay yooyu dañ soppeeku tey bi tey dañuy mel nii tey ñu nekk nii exemple bu nekkee ci kanamu non exemple déterminant yeeg adjectif yooyu wala problème yooyu bi nekk ci kanam non euh, liñ fay yore euh, day wuuteeg wala rôle bañ fay taxawe wala classe grammaticale bi leen analyser day soppiku waaw maanaam c'est-à-dire ñoom daal dañuy soppiku selon seen position ci France bi nekk hmm. ci gàttal yooyu ñun hmm, ñu leen tuddee les classes grammaticales bu ñu xoolee l'adverbe la préposition ak la conjonction ak l'interjection yooyu dañuy gis ne ay mo invariables la mooy ay mots lañ yoo xam dañu euh, duñ soppiku ñoom duñ soppiku mhm. ñoom phrase biñ nekk euh, lu mu mën a euh, taxawe taxawe ak nu lu mu mën a transformé wu di soppiku wëlbatiku téewul rek euh, seen position moom du soppiku téewut ay mots invariables ay mots la ñoo xam ne duñ soppiku benn yoon kon euh, dañuy daal di yemale foofu suñu leçon tey rek euh, di wax ni yeneen i dikkaat léegi gën a leer incha allah bu leen fàtte abonné partage bés cloche notification bi lépp rek dina leer incha allah